an takkoon ak bu nekkee judraanuhu miiram ya mufdaanatan di aj rafete bi suwari ci ay photo al faniyati yi ko jug aar al mustamlahati ya diñ xoromlu allati ya nga xam ne ya dullu dana tegtale ixtiyaaruha seenug tànn ala fikratin ci xalaat saafiyatin bi aji sell wa zawxin ak guum ak mos wala ak xàmmee salimin gi aji mucc ne nit ku ne war naa wut ci këram béréb boo xam ne da koy waajal ngir teeroo ci gan ñi koy seet si duñu wax ne béréb boobu faaw nga def fa yére yu foor a foor yu ràññi ko ràññi ko ci foor waaye fexeel béréb ba set di lu xel nangu ñu jekkal ko ba mu jekk lu ne itam nekk fu mu war a nekk bu fekkee mën nga faa def yéej xeeti yëf yi nga xam ne ay aar la xeeti yu xorom yi nga xam ne dañ koy rafetlu ci wàllu xarala ci wàllu xaa ci wàllu aar dañ koy rafetlu boo ko mënee def baax na mbir yooyu itam boo mënee def ay photo yoo xam ne bu dee ci wàllu aar dañ koy yéem a ko xoromlu nga xam ne ku amee xalaat bu sell amu xam ak xàmmee rek daal di koy rafetlu daal di rafetlu photo yooyu loolu su mënee am baax na su mënta am daal fexeel ba foofu moom set te ñu jekkal ko ba mu jekk rek at tamrin at taani at mimil jumalal aatiyata bu bopp bi waddax ismi mafulin fi lmakaani alxaali wa bayin mawqiahu min al i'raab dafa bëgg béréb bi dara nekkut nga teg fa is maful moo xam mën na faa nekk jug na fa ba noppi nag wax lu mu nekk ci i'raab bi boo nee maasaal dañut alxamaru weer wi maasaal xamaru mastooran di lu ñu suturaal bu is maful xasibtu jorot naa aljoysho xare ba bu ci tegee mahzooman muy lu ñu dàq mahzoom alkubéer grasa yin yesoo uni dana ma naqari an araak bu ma la gisee mel ni nga ne madlooman ngay ku ñu tooñ mooy gis lañu lay tooñ daal lu ma naqari la nga def ko nag ka ànd na sitaara daanaka rido ba ak duhaa ul madloomi ñaanu ku ñu tooñ nga mottali ko ak albasxu tifli fi tarixi ci yoon wa xaadatun aada la habitude la mën nga cee teg mustaqbahatun aada la bu ñu ñaawlu bu bon a bon tifli ci yoon wi maa xalimtu xamuma woon ne ànnal miftaax naka caabi ba nga wéy laa tasaalu du dañ natiijatul imtihaani résultat bu examen ba mën nga cee teg majhoolatan du ñu umpale ba léegi majhoolatan dahabtu dem naa ilal baa bi jëm ci bunt ba foo jëttu woote mu fekk ko mën nga cee teg muuxu laqan ab xaytu des desal naa an nawaafisa fenêtre ya mën nga cee teg maftoo xatan nga xool at tamrin at taalis ijxal kullas mafulin fi maa yati mafxoolan taaniyan li fiilin min afxaali rujhaan wastaw fi jamiha haadihi l afxaal daa bëgg baat yi bëgg a dikk bu ci nekk nga def ko mu nekk mafulum ñaareel ci fi xale daa firi njort baaj nag mooy màdd boo màdd boo xam lu ñu rendi nekk nga ne xasibtu at taaira jort naa njanaawa màdd boo xam mu lu ñu rendi nga def nag loolu maftoo xam lu ñu ubbi mut xaban ku ñu sonal madloo man ku ñu tooñ maloo man ku ñu yedd mu xaraman lu ñu araamal mu waffaqan ku ñu tawfiixal mustabxafan ku ñu doydal at tamrin arrabia ijxal kullasmin min al asmaai l aatiyati isman li inna aw ihda axawaatiha wajxalil xabara isma mafxulin mulaiman lisimi yooyu bëgg a dikk bu ci nekk da nga koy def muy lisimi inna mbaa lisimi kenn ci bokk inna niki ànd na mbaa laakin na mbaa laxan la mbaa laytaa yooyu ba noppi nag fexeel ba xabar ba mu doon is maful moo xam ne yàlla na fa kon sa yoba maas alkasiba fen ar rajula waaja at tilmizayni ñaari élèves ya alqalama estilo ba sadiqi sama xarit addawaata daaja su dee inna moom mën nga ne innal kaziba naka fen mam xóotun lu ñu sànja la maanaam fen daal lu ñu bañ la bañ gu ñaaw a ñaaw innal kaziba mam xóotun boo ko defee jël nga al kaziba def ko muy lisimi inna te indi nga xabara muy isma fool moo xam ne yàlla na fi nga def ko nag baa di ci des at tamrin alxamis ba kull asmin min al asmail atiyati fi jumlatin mufidatin wasifu wasifu te nga naatal ko bismi ma fool ci isma fool mulaimin lismi yéen bëgg a dikk bu ci nekk daa bëgg nga dugal ko ci jumla bu am njëriñ ba noppi nag andil ko naat boo xam ne isma fool lay doon baat yi mooy tariixun aw yoon rajulun waay imraatun jigéen ak tuffaaxaatu pom ya sukkootun noppi albisaatu tappi ashujarataan ñaari garab kalaamun wax albattatu kanaara al amaalu ay jëf boo ne woon haza tariqun maftoox lii di aw yoon la wu ñu ubbi kon andi nga tariqun ci biir wax bu daanu ba noppi indi nga ko naat boo xam isma fon la bu mën a ànd ak moom bu fekkee da ngay jigéenal tariq nag nga ne haasihi tariqun maftuhatun bu ko dee góoral nag kon haasa tariqun maftuhun rajulun boo ne woon shahadtu rajulan mawhuban mawhub ku ñu may maanaam ko yàlla defal loo xam ne ak may la kon ani nga rajulan ci biir wax bu daanu añul ko naat boo xam ne itam isma fon la te mën naa ànd ak moom nga def koy ci des at tamrin assadis suux tëggal min kulli fi'lin min al af'al atiyati isma maf'ulin wastamilhu fi jumlatin mufidatin baat yi moom ay fi'al lay doon bu ci nekk daa bëgg nga tëgg ca isma fon ba noppi dool ko ci wax bu daanu ixtarama ormal na isma fool ma muxtaramun luñ ormal lay doon li nga ne al ustaazu cheykhun muxtaram ustaaz bi ak góor la gu ñu respecté wala sëriñ la bu ñu ormal bu ñu respecté su boobaa ani nga isma fool ci ixtarama dóngoo ci jumla jëfandikoo ko ca boo xam ne jekk na fa xatara toq na isma foolu sulaasi lay am waaye daa mel ne sitee noonu la ko defa xatara xaalonk la ko def bu defoon nag muxadara tere na xatara toq na li ci yëpp moom isma foolam bariwut ndax lazim gi xadara tere na tom bi dem ci tadaro bi moom moo bari maxdóor mook mam noox ñooy bokk max naa kataba bind na maktuub mooy isma foolam xataxa dog na maqtoo tasallaqa ñàpp na mutasallaqun lu ñàpp manaxa tere na mam noox istaxraja mustaxrajun xazama màggal na muhazamun xaanada dëngoonte na muhaanadun ku ñu dëngoonteel saaxada dimbalee na musaaxadun ku ñu dimbalee attamrin assaabi udgur al afxaala al maadiyata wal mudaarixata li kulli ismi mafoolin fi ma yati baa dee bëgg dikk moom bu ci nekk isma fool la daa bëgg nga yow ku ci ne nga wax almaadi yi nu muy mel ci moom ak mudaari nu muy mel ci moom mahsuudun ku ñu añaane almaadi ba day nekk xasada mudaari mu doon yaxsudu makshuuf lu ñu wëññu maadi ba day nekk kashafa yakshifu di fiilu mudaari ma mu baax lu ñu daganal abaaxa mooy almaadi yubiixu di mudaarixu muharram luñ araamal xarama mooy almaadi yu xarrimu di mudaariun mustaqbaxun lu ñu ñaawlu istaqbaxa moo di almaadi yastaqbixu mooy mudaariun mu mahadun lu ñu laltaayal mahada mooy maadi yu mahidu mooy mudaariun majhool lu ñu réere majhool lu ñu réere jahila mooy almaadi yajhalu mooy mudaariun mustahab lu ñu sopp istahaba moo di almaadi yastahibu di mudaarihum mafhum lu ñu dégg déggu xam fahima mooy almaadi yafhamu mooy mudaarihum mustashalun lu ñu yombal mbaa lu ñu jàppe muy lu yomb yastashilu mooy mudaarihum istashala moo di almaadi nga xool nag at tamrin as taamin def ko at tamrin at taamin xool ko def ko al mustasna lii mooy buntub lu ñu settee lu ñu settee mooy lu ñu génn rek awalan al mustasna lañ settee bi illaa ci illaa lay njëkk indi al amsilatu misaal yi xadara teew na al astiqaaw xarit ya illaa xaliyan ndare àlliyu xalaltu regle naa mooy fecc naa masailal xisaabi problème yi calcul yi illaa masalatan ndare benn problème wala ndara benn masala maanaam calcul dañ la ci faral jox ay masala bëgg nga seet noo koy doxale ba mu jub nga ne nag yépp def naa ko yi ma joxoon ba mu des benn xaratu jàng naa alkitaaba téere ba illaa safhatayni ndara yaari xët téere yépp jàng naa ko ba mu des ñaari paas yoo xam ne jànguma ko in xadaa jeex na asay fu été bi illaa yow may ni ndara ñaari fan coroon bi jeex na ñaari fan rek moo ci des albaas te amal seetantalal al asmaa lisim ya allati ya nga xam ne baax da illaa nekk nañ gannaaw illaa fil amsilati ci misaal yi al mutaqaddimati aji jiitu al mutaqaddimati te jit kon nga fekk ku las min bépp lisim min haa ci ñoom yu xaalifu muy jiyoonteeg al isma lisim ba allasi ba nga xam ne xablahaa nekk na ci ak njëkkam fii hukum yi ci àtteem ba ndax fa fil misaali ci misaal ma al awali mi aji jëkk xakkam naa àtte nanu xalal asdiqaay ci xarit ya bil xudóori ci ak teew amma xali yu ndaal aliyu wax wate moom al ism mooy lisim ba allësi ba nga xam ne baxda illaa nekk na ci gannaaw illaa falam yaxdur teewut wala mes but te saxut loxoo ñeel ko alxukumu àtte ba allësi ba nga xam ne sabata sax na li baqiyati asdiqaay ñeel ña des ci xarit ya nee na boo seetloo misaal yi nga xam ne moo jàll da nga gis ne misaal bu ci ne am na lisim boo xam ne moog ba ko jiitu bokkuñu àtte day mel ne ba ko jiitu bu saxee bokk ci mbir ma moom da caa génn bi ca booba génnee moom da caa dugg moom dañuy safaanoo daal mel ne boo ko dee seet bi nga ne xarit yépp ñëw nañ da nga ne ba mu des àll yu kon xarit yi ñëw nañ waaye àll yu moom ñëwut kon yow gi nga wax ci xarit yi ak saxal la al yu nag moom danga ko dàq ci moom ni moom moom ñëwut moo tax mu ne foofu moom kon mustasnan ku ñu settee la minhum ci ñoom wa mu xaalifunte aji jiyoo la fil hukmi ci àtti lahum ñeel leen waaw bi nga ne xarit yi ñëw nañ ne ndari àll yu kon àtte bi nga wax muy ñëw gi moom matale nga ko mboolem xarit yi ba mu des àll yu àll yu nga ko caa génn ne moom ñëwut kon wuti naa ak ñoom ci mbir moomu wa min ajli saalik ngir loolu yu samma def na ko tuddee mustasnan lu ñu settee wala bokk ku ñu settee ndegam ku xel la ndax àll yu la koy tuddee daal ku ñu génn ci àtte ba kama yu samma ni ki dee fi tuddee al ismu lisim ba allësi ba nga xam ne xabla illaa nekk na ci njëkk illaa wa wote moom lafzul astiqaa yi mooy baatub al astiqaa dañ koy tuddee mustasnan minhu lu ñu settee ca moom maanaam lu ñu génnee ca moom waxaakasa nekki ni yuqaalu la dee fi wax fii baqiyatil amsili ci la des ca misaal ya li topp illaa nga xam ni moom nga génne moom moom ngay tudde mustasnan ku ñu génne ku ñu seetee baat ba ko jiitu nga xam ne ëmboon na mbooloo mi bu ëmbaale ko moom mii nag te nga génne ko ca li ki bu dee fii al astiqaaw moom ngay tudde mustasnan minhu kañu seetee ca moom mooy kañ génnee ca moom bu dee misaal mi ci topp masailal xisaabi mooy mustasnan minhu masalatan bi topp illaa mooy mustasnan bu dee bi ci topp alkitaaba mooy mustasnan minhu ndax ci nga génne ñaari paas ñi ko defee safxatay nii nag mooy nekk mustasnan fa itam assayfu mooy nekk mustasnan minhu yow may ni mooy nekk mustasnan kon alxawaaxidu yu samma def na tudde al ismu lisim ba ëllësi ba nga xam ne yaqaaxu dana tab bi pax da illaa ci gannaaw illaa daañu ko tudde mustasnan lu ñu settee lu ñu génne wa yu samma def na tudde al ismu lisim ba ëllësi ba nga xam ne yay jiw dana dikk xablaxaa ci ak njëkkam wa yastamilu te muy làmbaayoo fil maxnaa ci maxnaa ma xalaamaa ci la nga xam ne ba adaxaa nekk na ci gannaawam dañ koy tudde mustasnan minhu ku ñu seetee ca moom kon xablaxaa ci ak njëkkam da ko delloo ci illaa bax daxaa itam xaa bi da ko delloo ci illaa araf dañ koy jigéen la ko góoral moo tax dane lisim bi nga xam ne moo topp illaa moom la ñuy wooyee ba ñu seetee muy bañ génn ca wax ja nga doon wax moom bokkul ci àtte ba baat ba ko jiitu na te nga xam ne ëmboon na bii nga génne ci max naa ambaale ku bokkut ak moom mu tudd mustasnan minhu al mustasna lañ settee bi illaa ci illaa ismu lisim lay doon yudkaru boobu def na ko tudd bax daxaa ci gannaaw illaa mu xaalifan mbir muy aji wutante fil hukumi ci àtte limaa ñeel la nga xam ne xablaxaa nekk na ci ak njëkkam nekk na ci njëkk illaa kon buñ la laajee al mustasna lañ settee ngay wax lisim la boo xam ne dañ koo indi ci gannaaw illaa ngir wane ne moom la ko jiitu wóote nañ ci àtte bu fekkee loolu daa sax moom dafa dàqu bu fekkee loolu dafa dàqu moom dafa sax maanaam bu la ko jiitu bu duggee moom dafa génn bu loola génnee moom dafa dugg dañuy tafaanoo bi nga ko xamee ba noppi nag àtte bi moo ci topp xukkumul mustasna lii mooy àtte bi lañ seetee bi illaa ci illaa al am al amsilatu xukkumul mustasna bi illaa mu jëkke al amsilatu at marat meññ na al ashjaaru garab ya illaa shajaratan dara genn garab taara naaw na alxamaam petax ya illaa waahidatan dara menn farra daw na al junuudu soldaa ya illa al qaaidu dara commandant ba fee da nga ne garab yëpp meññ ba mu des genn moom meññut petax yëpp naaw ba mu des menn moom naawut soldaar yëpp daw ba mu des commandant ba moom dawut lam tatafattax féetut al azhaaru tóortóor ya illal banaf saja ndare yoleet aw wala nga ne illal banaf saju lam yan ju muccut al mustahimuuna way sanguña illaa ahmada ndare ahmad aw wala nga ne illaa ahmadu tey mën na ko maa sallamtu nuyuwuma xalal qaadimina ci way dikk ña illal awwala ndare aji jëkk ji rek laa nuyu awwala nga ne illal awwali ba tey mën na ko laa yus di du garay mooy du joxe an nasihata laa biré ba illal muxlisoona ndare way sellal ña ñay sellal rek def ngir yàlla ñoo mën a joxeb laa biré laa biré bu sell ngir yàlla maa saaxabtu àndoonte wu maag illal ax yaara ndare tànneef ya laa tasoodu du sang maanaam du nekk ci kaw ak chuhon bu peuple yi muy giir yi illaa bil axlaaq yi ndare ci jikko ya maanaam xeet wu ne ci jikko joofe rek la yëkkati ko jëm ci kaw albahs te amal seetantalal al amsilata al talaasata al ula tajit kon nga fekk al mustasna minhu mustasna minhu madkooran muy lu ñu tudd fi kulli misaalin ci mépp misaal wa tajit te da nga fekk it alkalaamu wax ba fii kullin ci kenn ku ne min haa ci ñoom musbatan muy lu ñu saxal ay li mu ci namm xayra man fii yin du lu ñu dàq wa isa ta amalta boo seetantalee almustasna lañ seetee wajattaxoo nga fekk ko mansuuban muy lu ñu nasab fil amsilati ci misaal yi asalaasati yedi yet jamihiha mboole seen nee na boo delloo ci yett yi nga njëkk a misaal tam tàmbalee ci atmarat da nga gis ne fu ca nekk wax ba andi nga mustasnan minhu maanaam baat bay firi mbooloo ma ëmbaali ñëpp ñëpp andi nga ko noppi nag wax ba sax boole ca mooy amul dàq amul dara ndax fee andi nga al asjaaru mu ëmbaale garab gee nga génne fee andi nga alxamaamu mu ëmbaale waaxidatan jee nga génne fee andi nga al junoodu mooy mustasnan minhu mu ëmbaale alqaayida kon foofu yëpp andi nga baat bañ seetee ca moom te it wax bi dafa sax amul genn dàq foofu na boo ko seetloo gis ne la topp illaa dañ koo nasab gis nga fee illaa shajaratan moo fa nekk fee illaa waahidatan moo fa nekk fee illal qaa'ida moo fa nekk walaw annaka doonte naka yow tatabaata toppatoo nga al mustasna lañ seetee bi illaa ci illaa fii jamihi taraaki bi ci mboolem composé yi allati yi nga xam ne dukkira tuddeef na fiihaa ci ñoom al mustasna minhu lañ seetee ca moom wa kaana te fekk nekk alkalaam wax ba fiihaa ci ñoom musbatan di lu ñu saxal la wajattaxoo kon nga fekk ko mansuuban mu ñu nasab daayiman faaw mu ne boo toppoon téere yi ba téere yi jeex foo gis ñu seetee faak illaa te la te laata illaay dikk fekkal ñu tudd almustasna minhu baat bañ seetee ca moom wax ba itam sax boole ca lii foo ko fekk ci téere yi ba téere yi jeex la topp illaa di mustasna dañ koy nasab nasab rek mooy doon atteem unzur xoolal ilal amsilati ak talaasati ak taaniyati yi aji ñaareel te jit kon nga fekk al mustasna minhu lañ seetee ca moom madhkuran muy lu ñu tudd fi kulli misaal ci mépp misaal min haa ci ñoom ay don ba tey kama kaana na mu nekkee woon fil amsilati ci misaal ya ak talaasati ya di yet al ula yet way jëkk walakin al kalaama waaye nag wax ba xunaa fii man fii yun lu ñu dàq la wa isa taamalta boo seetantalee al mustasna lañ seetee bi illaa ci illaa fi haadihi l amsilati ci yilay misaal wajatta nga fekk aaxirahu mu jëm nga yàqahu muy tàbbi xalaa xaalay ni ci yaari mbir fa taaratan léeg-léeg yekkoon day nekk mansuuban di lu ñu nasab wa taaratan léeg-léeg yekkoon day nekk taabihan di aji topp lil mustasna minhu ñeel lañ seetee ca moom fii ihraabihi ci ihraabam nee na boo xoolee yett yi ci topp nag mooy yetti ñaareel yi moom da nga gis ne al mustasna minhu muy la nga seetee ca moom ñëw na nam ñëwee woon ci yett yi jiitu li ñu wutee nag mooy fii moom dafa saxut fii moom dàq dafay nekk fii nga xam dàq nekk na fi nag moom boo xool la topp illaa muy mustasna ma dana man ñaari anam mën naa na sab mën nga ko mën nga ko badal ci al mustasna minhu lu al mustasna minhu def rek mu def ko niki lam tatafattaxil azharu da nga ne tóotóori benn fettu ji wax bi tudd nga al mustasna minhu muy al azharu waaye dàq dafay nekk muy lam kon boo seeteeg illaa mën nga ne illal ba naf sa ja nasab ko mën nga ne illal ba naf sa ju su boobaa al ba naf sa ju day nekk baral ci al azharu topp ko ci dafa fee itam da nga ne lam yoon ju al mustaximoona ña doon sangu ca géej ga mbaa dex ga kenn mucc ca gannaaw ba nga ne lu may ahmad ahmad rek a mucc nga xam ne wax bi tudd nga almustasna minhu muy almustaximoona waaye lam dafay nekk di dàq kon li topp illaa mën na illaa ahmada mën na illaa ahmadu boo ko defee ahmada muy mustasnan mansuub mustasna mu ñu nasab boo ko defee ahmadu nag mu nekk beral ci almustasna minhu muy almustaximoona topp ko ci dafa moom rafaaya dàmm almustaximoona dafa nekkoon jamhu takkar moom rafaaya woon waaw boo ñëwee ci maa sallamtu xalal qaadimina illal awwala mën na itam illal awwali ndax foofu tudd nga almustasna minhu muy alqaadimin da nga ne wooy ñibbisi ña nuyuuma ca kenn kenn waaye nag dàq dafa nekk muy maam yi kon li topp illaa mën nga koo nasab ne illal awwala muy mustasnan mansuub mën na illal awwali al awwali nekk badal ci alqaadimin alqaadimin dañ ko jar ak xalaa moo tax moo tax mu ne walaw annaka donte naka yow tatabaata toppatoo woon nga almustasna lañ seetee bi illaa ci illaa fii kulli tarkibin ci bépp composé yushbihu ba dana nuru al amsilata misaal ya al madhkurata yaruñ tudd xanaa file la wajattaxoo kon nga fekk ko daa'imun faaw imma mansuuban benn mu luy nasab wa imma taabihan wala benn muy aji topp lil mustasna minhu ñeel lañ seetee ca moom fil ihraabi ci ihraab ba li nga gis fii nee na moom nga gis ci mboolem téere yi foo fekk ñu seeteeg illaa te la jiitu woon tudd nañ ca mustasna min waaye dàq dafa nekk dana man ñaari anam la topp illaa muy mustasna bu la neexee nasub ko bu la neexee mu topp mustasna min ma ci ihraab te loolu mooy mu nekk baral ca moom wa bir rujuuxi ci dellu ilal amsilati jëm ci misaal ya at talaasati ya di yet al axirati aju mujj al axirati tajidu da nga fekk almustasna minhu lañ seetee ca moom mahzufan mu luñ asaf fi jamihiha ci mbooli seen fa aslul misaali cosaanul misaal ma al awali ma njëkk mooy laa yus di du joxe an nasihata laabiré ba ahadun kenn illal muxlisuuna door a dikk fa xusifa te daggeef minal kalaami ci wax ji lafzu ahadin baatub ahad wa baqiya te des al misaalu misaal ma baxda haadal xasfi ci gannaaw gi li asaf kama raayta ni nga gise rek wa kazalika naka noonu yuqaalu la dee fi wax fil misaalayni ci yaari misaal ya al aaxirayni yi aji mujj boo xoolee ti misaal yi mujj tàmbalee laa yus di da nga gis ne foofu kat moom dañoo gaaw a seeteeg illaa te almususna minhu ñëwagutoon for ñu ko tudd ndax dañ ne laa yus di an nasihata yus di di mu daarihu laa bi nekk laay dàq an nasihata nekk ma forum bi man soob yus di amagul faaxil bu amoon faaxil nag mooy nekk mustasnan minhu ni ki boo fi defoon ahadun laa yus di ahadun an nasihata soo ko defoon rek almusna mun hu ñëw waaye andiwoo ko kon foofu wax bi dafa manqué ci tam itam boo ne woon ma saaxabutu andowu maag ahadan kenn ahadan jooju mooy nekk mustasnan minhu waaye dañ ko dagg ñëwut boo ne woon laa tasoodu ashuhubu bi shay in ci dara bi shay in boo ko fi tegoon ci ashuhubu bi shay in ju daal nekk almustasna minhu waaye nag andiwoo ko fu mel ni foofu nag luy àtteem wa isa taamalta boo seetantalee almustasna lañ settee bi illaa ci illaa fi haadihi l amsilati ci yéne misaal ak talaatati wa jattahu nga fekk ko mooraban muy lu ñu ihraabe ala xasabi mawdihihi ci kem palaasam fil kalaami ci wax ja kama law kaanat mel ni doonte nekkoon na illaa illaa xayra mawjudatin du luñ fa fekk du luñ fa fekk muy nekk fa far foofu moom fil misaali ci misaal ma al awali mi aj jëkk marfoohu lu ñu rafaa la xalaa annahu ci kaw naka moom faaxilun faaxil la wa fil misaali ci misaal ma asaani mi aj ñaareel mansuubun lu ñu nasaw la xalaa annahu ci kaw naka moom mafxulun bihi la wa fil misaali ci misaal ma ak taalis mi aj ñetteel majrurun bil bàyyi fu mel ni fii nga xam ne ngaa teel a settee ci illaa te wax bu ma tut da ngay jàpp illaa mel ni moom lu fa nekku teyam la topp illaa war a nekk mustasna nag nga motlee ko wax ja bu dee fu mel ne fu njëkk fii ci laa yus di faaxil lañ soxla woon nga jàpp illaa mel nekk fi nga def almuxli soona muy faaxil yi yus di daal di rafaay waaw ndax li muy jam xamu zakkar fee maa saaxabatu illal axyaara wax bi daa manqué woon mafoolum bihi nga jàpp illaa mel ni nekk fi nga def al axyaara mu nekk mafoolum bihi ci saaxabatu laa tasoodu ashuhu bu bi shay in la woon ci cosaan luñ jarag baa moom lañ fi daggee kon da ngay mel ne illaa nekku fi la ci sës ci illaa ji nga jar koog baa daal ne illaa bil axlaaqi alqawaidu lii mooy takk-takk yi ida kaana bu nekkee al mustasna minhu mustasna minhu madhkuran di lu ñu tudd wa kaana te nekk alkalaamu wax ba musbatan di lu ñu saxal wajaba kon war nasbul mustasna nasab lañ seetee bi illaa ci illaa su fekkee ne al mustasna minhu tudd nañ ko te wax bay dafa sax boole ci kon bu ñu fa seeteeg illaa la topp illaa di mustasna dañ koy war a nasab ida kaana bu nekkee al mustasna minhu mustasna minhu madhkuran di lu ñu tudd wa kaana te nekk al kalaam wax ba man fii yan di lu ñu dàq jaasa kon dagan fil mustasna ci lañ seetee bi illaa ci illaa ay yun saba bu dee fi ko nasab xalal istisna yi ci ak seetee wa an yatbaxa ak mu topp al mustasna minhu lañ seetee ca moom fii inraabihi ci inraabam ba su fekkee ne tudd nañ al mustasna minhu waaye nag foofa daa am dàq kon baat ba topp illaa di mustasna mën na ñaari anam bu la neexee nasab ko ni dama ko nasab cig seetee bu la neexee xool la al mustasna minhu def nga def ko ko mu topp ca moom ci inraab bi nekk ca badal loolu lay doon ita kaana bu nekkee al mustasna minhu mahdufan di lu ñu asaf oxor yi ba kon ihrabeef al mustasna lañ settee xalaa xasab maa ci kem la nga xam ne yaqtadi dana ko sàkku mawdihuhu palaasam fi tarkiib ci composé ba kama law kaanat mel ne doonte nekkoon na illaa illaa xayra mawjudatin di lu dul luñ fa fekk di lu dul lu fa nekk ci misaal su fekkee ne mustasna minhu ñëwut kon wax ba daa manqué nga ngaaw nga gaaw a seetee ci illaa kon nag doo wax ne li topp illaa nangam laa koy def da ngay xool rek la wax bu manqué nga jël li topp illaa motle ko ko man naam lam manki wara rafa niki misaal mi mu la jox ci la yusdi an nasihata illa al mukhlisun man naam la war motli war na sop niki ma sahabatu illa al akhyar man naam la war motli wara jar ak arafu jar melne la tasudu ashuhubu illa bil akhlaq dafa waxoon awalan al mustasna bi illa taniyan al mustasna bi xayrin ci xayru wa siwa ak siwa mu jëkke al amsilatu ittaqadat tàkk na al masabihu lamp ya xayra wahidin ndare benn lamp lamp yépp tàkk ba mu des benn sallamtu nuyu naa alal qaadimina ci way ñibbisi ñi wala ci way dikk ñi xayra sahidin ndare sahid sahir képp laa nuyu wut ci des ñëpp te ñibbisi te ñëw nuyu naa leen maahaada seetut almarida malaat ba xaayidun jenn aji seet xayra tabibi ndare médecin bi aw wala nga ne xayru tabibi ndare médecin bi rafa xayru malaat bi waa ji tawat kenn seetsiwu ko lu may docteur bi